لم يكن من المصطفى محمد سرا وجهلا في البرايا صمدي لم يكن من المصطفى محمد سرا وجهلا في البرايا bismillah wa ma tawfiqi ila billah barke borom tuba barke borom tuba barke borom tuba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara te itam di leen jox seen wàccuwaay bu baax waaye nag ñuy jëdal ci nuyoo beeg ziar bi euh, Serigne Mountakha Mbacké al Khalifa di ñaan saa borom yàggal ko fi lool dama ànd ak wér ba naa li nga xamante ne am na ko saa borom defal ko ci lu fawxa ay njottam te itam mu yàgg ko ak ak mbokk taalibe naka noonu ñuy nuyu ak a ziar Serigne Amdi Fall moom seen Modou Mbenda moom itam di ñaan saa borom yàggal ko fi lool te mu a ak wér ba li nga xamante ne am na ko saa may ko ci lu kawe njottam mu yàkk ko ànd itam ak mbokk taalibe mu mel ni ñi ngi fii ci euh, euh, Porokhane war fee amal wàccaay yi nga xamante ni moom moo aju ci màggalu euh, suñu yaay suñu maam ji di soxam soxna Mariyaamatullaahi Buso di ñaan rek suñu borom comme nañ ko ñaanee woon daaw mu may ñu ñu yàgg kaa fekkee yàgg koo ànd itam ak mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo safoo seen télévision bii di Majmahun Nurayni TV yi di leen santaat bu baax itam ci qualité gi waaye itam ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun saa su ne di leen wax rek ni noonu rek la di di di di leen ñaanal suñu borom defal leen ah, ngeen gën a yàgg am ak bëgg jëm si ñun waaye itam gën a guddal fan yi kon xam naa rek dañuy daal di ànd ak yéen dégtal leen li nga xamante ni moom mooy li fi bawoo waaye li nga xamante ni war na fi am jëm ci ay ziar waaye itam ay ñaan jëm ci barab yu fasantikoo yi nga xamante ni moo ngi fii ci Porokhane kon bu ko defee rek da ngeen leen ni ànd ak ñun ak sama caméraman bu ñaawul bi ñu ànd ak yéen. daa di doxal li nga xamante ni moom moo aju ci euh, ziyaar yi bismillah mustafa muhammadi siran wa jëran bil baraya ndax borom daa sonnoon ci bis kon nag fii ku fi ñëw moom xaaw nga sonn ñi ñaan liñ fi sàkk si ñun ñëpp yàlla nañu ko suñ borom nangul te defal nu ko xéewal ak tawfeex euh, gis nañ ni maanaam mbokk taalibe yi teew nañ kenn ku ci nekk ñu ngi dugg ñi ñi ngi ziyaar ñii ñi ngi ñaan barab yi nga xamante ni yëpp ñi ngi biir Porokhane ani boo nekkee ci dëkk bi ban yëg-yëg ngay am ah kontaan rek mhm. xol bu sedd bu ñuy ànd ak tooy xam ne lépp borom bis bee ko waral rek mhm. muy soxna jaaratulaay mhm. ñu fas yéene mu defaral na sunu xol mënuñu koo jege fenn waaye nag buñ sañoon daal mën a jéem a baax daal yàlla nañu yàlla tojal suñu xol daal ñuy roy ci soxna jaara rek di ñaan fekk ko ay déwén yi déwén barke Seexal Xadim amiin amiin yaay ba amiin jërëjëf si kàddu yi kàddu yi am solo yooyu noonu kon xam naa rek bu ko defee dañuy daal di doxantu dem xool yeneen mbokk taalibe yi ak ñi nga xamante ne ñu ngi si yeneen barab yi xool ani ban taxawaay lañ am jëm si barab yooyee bismillah di la jox sa wàcc waay di la laaj ani boo ñëwee fii ci barab ban yëg-yëg ngay am jëm si li nga xamante ne moom moo di màggal bi bismillah man kay moom macha allah Euh, euh, kontaan daal laa def ba mënumaa wax sax parce que dara gunta neex nga bàyyi ko Touba di ko fii ba ñu maay Porokhane rawatina nga tudd Soxna Jaar bu soo borom Porokhane kon defe naa ne dañoo kontaan ba fa kontaan yam daal macha allah ñaan daal li nga xamante ne moo ñu fi indi li ñu xam ne moo ñu fi tax a jóg bu ndikkee ñaan ko Soxna Jaar yàlla nañu ko Soxna Jaar suñu ñaan yàlla na ko Soxna Jaar a nangu franchement kontaan nañu trop parce que Porokhane dafa neex te kenn ku nekk bëgg nga fee ñëw daal. alhamdulilah kontaan nañ daal. alhamdulilah yow nee nga soxna Diarra nga tudd sa biir kàddu ani lan ngay dénkaat sa mbokk jigéen yi bu ngeen gisee li nga xamante ni li li soxna Diarra am na ko fii ci barabam bi ak mbooloo mi ngi fii yëpp daje te benn soxna képp tax. soxna jaara moo amul morom lenn lay conseil sama mbokki ñi ñu jéem a roy si soxna a a ma boo xoolee soxna jaara rek defe a mën a sëy te da nga war a mën ne soxna jaara kenn la te soxna jaara tamit amul morom c'est que ñun daal en tout ñaan yàlla daal li nga xamante ne yàlla nañu ko suñu borom fayal soxna jaara bi sa borom Porokhane amuñu fayam daal en tout cas yaay booy si kàddu yi am solo yooyu ci barki borom Touba di nuyu Serigne Mountakha yal na fi yàgg ñun wax Touba Madiane duñ doon sëñ daara ñu di ko wax ñu ngi leen sant di màgg gi moom doon tubarkal la sant baax a baax ah. màgg gi moom ci man te te nit ñi ñëwaguñ daanaka ñu ngi ñëw tey tey moom daal foo wees la noo ko jógee suñu ab dàggee ñoo siyaare ñoom ci teen bi sant naa ñoo ngi sant bu baax ah, ah, bu ngeen bu ngeen nekkee ci ci ci ci dëkk bi ani ani ani ban yëg-yëg ngeen di amaa jëm ci li mooy màggal gi waaw ndax ah, maam Diarra mhm. bi ni fii mu nekk mhm. sëñ sëñ sëñ Basiiru mhm. ba ñu jógee jógee ñoor lañ wax dañoo wax ne boobu xamuñu barab bi nu demee waaye dafa nekk nit ñu yor ay jeesi ak kii di gor ba si fi mu daal koy taxawoo defar ko defar barab bi suñ Moussa Bassir nag moo daal di moo def daale ji doomam. Mm-hmm. yëg-yëg bi ñoom daal moom kibaande sëñ mm-hmm. ndax boo fi ñëw ñëwati bañ fi ñëw. Mm-hmm. booba yi yëpp amul jumaa sax amu fi. lépp daanaka lii lépp àll la. am na benn phrase bu nekk ca fee ñuy wax dàgg ja. léegi lépp ci dëkk bi la. kon nag eh, ñaan rek nag yàgg lool daanaka wér. moom la ñu ñaan sëñ bi it yàgg fi lool daanaka wér. te naanam yi mu naanal Sëriñ Touba. ñu àggale ko tan fekk. amiin man daal ngeen sant leen gërëm.

waaw salaamaaleykum yaay boy ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax xanaa rek di leen laaj euh, ginnaaw bu ngeen nuyoo joxe seen tur an ban jubluwaay ngeen am ci ndox mi nga xamante ne yéen a koy ñëw di ko wut fii ci nga xamante ne moom moo di teen Soxna Jaara bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu maa ngi tudd Coro dëkk Mbàkke di ñëw di wut ci ndox mi fas yéene cee barkeelu di ñaan ci yàlla sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te wér yàlla yokk fanam bi mu dund dund dund ba doyal taalibe yi yëpp noonu yàlla yàlla bàyyi ci kana ginnaawam ndox mi nag dañ ko dañ koy wut si ngir yàlla ak barkeelu ci barkeb soxna si ak baaxam di ñaan ci yàlla yàlla taaf ci barkeem di jéem a roy ci moom yàlla barkeel njaboot bi barkeel seen liggéey ak barke bi moo leen jullit bu ñëw ci màggal gi yal na yàlla nangu say ziar ak say jaamu yàlla ak say ñaan yal na ko yàlla na waaw jërë ngeen jëf euh, mbokk taalibe yi mbokk internet yi mu mel ne comme niñ leen ko waxee woon rek euh, maanaam euh, jot nañ leen fee dëgtal li nga xamante ni moom moo fi bawoo ci ay ñaan ay ziar ak ci barab yu fasantikoo yi nga xamante ni moo ngi fii ci Porokhane mu mel ni jot nañoo dem ci barabu soxna si. dañoo dem itam ca fa nga xamante ne moom moo di teenu soxna soxna jaara bi ngir dégtal leen li nga xamante ne moom mooy ñaan ak ziar yi nga xamante ni mbokk taalibe yi ñu ngi koy faral di amal fii ci Porokhane kon xam naa rek ñu ngi leen di jaajëfal ci safoo gi ak kóolite gi nga xamante ni am ngeen ko jëm seen télévision bii di Majmahun Nurayni TV kon di leen jox dig daje si yeneen i jotaay waaye du ma mën a jeexal te santuma ak ngërëm li nga xamante ni moom moo di sama mbokk taalibe yi ma àndaloon ci li nga xamante ni moom moo di eh, liggéey bi sëriñ Boukounta Diouf féete woon ci wàllum cadrage bi sëriñ euh, Mbacke Dioum féete woon ci li nga xamante ni moom moo aju ci wàllum régie bi ak euh, son yeeg kon di leen jox jaa di jox di daje ba beneen incha allah rabbi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf سرا وجهرا في البرايا صمدي لم يبد من المصطفى محمدي سرا وجهرا في البرايا صمدي مدى لنا الاسلام والمكرم